parce que man nekk na assemblée cinq ans minorité lañ fa woon di cee xam ne li may wax bés bu ne ñu jalgati yoon te mënoo ci dara loolu nag moo jeex tàkk nag ndax nag ñoo leen ëpp doole assemblée de majorité bi sax amatuñu ko ndax ba 83 bi nee na léegi non inscrit la ëpp ñu ñu lim gënuñ ñoo nekk ndaw ëpp ñu kàttan du ñu ñàkk fulla nag ba ñu jaay ñu lenn li ci biir assemblée loolu jeex na assemblé li tax nag li ñu def am solo lan moo ci tegu la ca la tepp ci ñaari fan yooyu yëpp dañoo dellu si négocier lépp dañ koo waxtaane lépp dañ koo waxtaane waxtaane nañu commission yi nañ ko war a tërale kan mooy jël ban nangam bi ñu ñëwee lan la ñu waxoon ci commission yi ñoom ñooy tànn lu leen neex opposition doog a tànn gars yi ne du fi amee du fi amee dañ koy waxtaan ba déggoo assemblée boo xam ne ëppoo fa doole gestion paritaire la war a doon opposition bi li mu wax rek mooy nañu toog waxtaane mbir yi fii kenn bugg fi lu yàqal Sénégal kenn du fi def loo xam ne da nga koy bloquer pour bloquer rek pour le plaisir déedéet lu ñu andi lu baax ñu wote ko lu ñu andi lu baaxul ñu ne leen du fi amee loolu mooy assemblée nationale. loolu la sénégal yi bëggoon ci ñun moo tax ñu jox ñu 80 députés de l'opposition deux non trois non inscrits muy 83 ñoom ñoo am kon est-ce que yoon la ñu toog yoon ne suñuy ñuy ay ay enveloppe la war a doon yu yu am ay couleur pour candidat bu nekk ñoom ñu ne loolu du fa amee ñoom ñoo violé règlement intérieur ngeen bëgg suñuy député lem seen loxo seetaan leen ñu def leen neex géwélu Macky Sall ne foofu mel ni moom moom senegal bis bu amatee ñu jaarat noonu foofu ma wax ko léegi mu leer bu yóbboo nag na préparer andi caserne gendarmerie biir assemblée nationale. may dànkaafu Macky Sall nag parce que man su may wax ak Macky Sall damay wax Macky Sall góor noonu lay def du ma gaar waale de moom day at ay nitam neleen leen dem leen saaga bu paree taxaw nele mag ñi naan moom kay dafa yaru man su may wax ak Macky Sall damay wax Macky Sall lu muy ruuma naat bi mu njëkkee génn Sénégal di ko xaar foog ni makki Sall lu am solo lay wax mu ñëw di wax wax yoo xam ne waxu daanu sareet la lam ci jublu woon yëpp mooy gëbal su constitutionnel bi mu am Ismaïla Madior Fall commencé ko toggal naan ko da ngay suspendre assemblée nationale article 52 de la loolu lay rumbanaat fi mu toll nii waxaat na ko benn télévision tugal président Tunisie bi foofu télévision boobu la ko demoon waxi dellu si daal di suspendre toutes les institutions en Tunisie Macky Sall barki dem bi mu demee Nations Unies télé boobu la dem waxaat ko dina xam ni Sénégal du Tunisie sénégalais yi ñoo bëggoon assemblée nationale wuyoo assemblée nationale moo tax ñu ne dañuy dooleel opposition moom nee na ses pouvoirs ne dépendent pas de l'assemblée les pouvoirs de l'assemblée ne dépendent pas de lui loolu mooy yoon suñu nee séparation et équilibre des pouvoirs mooy moom ci boppam ay pouvoir assemblée dépendrul ci moom moom waroon na am kersa di wax ci assemblée parce que mu ngi violer séparation des pouvoirs mais comme c'est un homme volontairement violent dans tout ce moom jàpp na ni Sénégal da koo donn ci ay waay juróom xam na ñun ñii ñëpp ay ay ay assujettis lañ moo tax mu jàpp ni moom mën na suspendre assemblée nationale bi daa di am tous les pouvoirs di gouverner par ordonnance loolu la gëm Macky Sall Ismaïla Madior Fall mu teg fee nga xam ne musiba bu mu dugg nag moo ko fay dugal. loolu la ko gëmloo fi mu toll nii waaye ba ñu yegg ca waaye teel naa teel nañ ko dànqaafu te wax nañoo ak sénégalais yi moom mënul fecc li sénégalais yi fas sénégalais yi ñoo bëggoon assemblée mel nii ñoo bëggoon opposition bi am fa doole ba lu fay ñëw dinañ ko mën a càmbar te noonu lañ koy càmbaree nag te fan yi di ñëw assemblée nationale dina neex de li muy tiit li ko tiital ba muy bax baxi loolu dina am assemblée nationale dina doon un lieu de débat boo xam ne mbir yi dootul ñëw rek député nelaw ba ñu ba ñu ne heure vote mu jóg ne wote naa déedéet lu ñu andi nañ ko càmbar parce que loolu la askan wi namm ci ñun waaye du ñu yem ci loolu ñun dañuy yóbbu dinañu proposer ay loi teg ko sur la table loi yu dëgër nag loi yu leer nañ yoo xam ne Sénégal da koo soxla dinañu déposer pour ñu taxawal ay commission d'enquête parlementaire ci luubal gi ci réew mi loolu moo ko tiital waa ji nelawatul lekkatul boo xoolee kanam gi sax da ko yërëm. dinañu càmbar budget yi nga xam ne moom la war a teg ci table assemblée nationale ba mu leen li lii mooy intérêt Sénégal lu ko may ñu delloo ko ko en seconde lecture loolu tax muy annoncer la couleur naan si on bloque moi je prendrai mes dispositions yooyu ay waxu daanu saret la kon ñu ngi rafetlu suñu taxawaayu député bu ñu déglu kenn ci ay donneurs de leçons assemblée nationale réglement intérieur la kan moo mun a ne Benno Bokk Yaakaar violewul règlement intérieur ni mu falee président bi amul ku ko ñemee wax ci Sénégal ba pare ñu bëgg a ne gars nañu toog jàpp seen njàmbur croiser les bras loolu jeex na ci Sénégal wax nañu gouvernement bu bees 2019 dama taxaw ci assemblée nationale vidéo yaa ngi fii xale yaa ngi koy génnewaat ba léegi ma ne sénégalais yi njuumte am na de ndax jox makki Sall deuxième mandat musiba la ci senegal ma ne woon Sénégalais nag juróom at yi di ñëw di ngeen souffrir.